jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm ci TMS TV coowal assemblée nationale lu jëm ci wàllum DPG tey ñu xëy moom muy xibaar bu lëmbee réew mi ilimaanu jëwrin yi di Ousmane Sonko gannaaw ba ñu sàkk mu dem amal DPG woom ci assemblée nationale moom sàkk woon ñu changé li nga xamante ni moom mooy règlement intérieur u assemblée nationale naka noonu ci lañ ko soppee bañ ko soppee ba pare député yi fare ci kujje gi woo Ousmane Sonko ci assemblée nationale mais daf di tànkam lamb boobu ba tey ilimaanu jëwrin yi di Ousmane Sonko demagul ay laaj yu bari tukkee ci bile mbir ñu bari di njort ay ndëgg sërëxal la ko député yi Benno Bokk Yaakaar yi la di waajal moom nag bu ñu sukkandikoo ci ab waxtaan bi mu mujjee amal mi ngi xam leen ni assemblée nationale dinañ ko tas ci diiru fukki fan dégg nañu Abdou Mbow moom mu ngi xam leen ni Ousmane Sonko nekkul ci yoon ndax mu suñu gis premier ministre bu ñu tab te ñëwul assemblée nationale ba xam tànkamlu bii jëwrin yi assemblée nationale ba pare soog a dem def DPGO wala daa tiit wala dafa bañ a dem fee ci assemblée nationale date bi ñu jàpp ni Ousmane Sonko dana dem assemblée national def DPGO ki nga xamante ni moom mooy président assemblée nationale Amadou Mame moom fukki fan ak benn ci weeru septembre la jàpp nga xamante ni moom mooy député yi yeewi askan wi ñoom nee na déedéet fukki fan ak ñett ci weeru septembre la Ousmane Sonko di dem def DPGO ñaari date yi nag jur ay coow yu baree bari fii ci Sénégal bu ñu sukkandiku sukkandikoo ci ay kàddoom Ousmane Sonko gannaaw waxtaan ba mu amaloon bërki Demba Ndiaye moom xel mën naa njortu ni gu décision pour dem fee ca assemblée nationale ndax mi ngi xam le ni ci diiru fukki fan assemblée nationale dinañ ko tas dinañ ko nangoom déet wala duñ ko nangu dafa jalgati yoon wala jalgatiwul yoon Amadou maam Diop ñu bari ñu ngi naan date bu mu jàpp dafa salfaañe la loi 97 ñu bari di ko ŋàññi tey xalaat ëllëgu benn bokk yaakaar foofu ci assemblée nationale gannaaw ba yoon mayee njiitu réew mi mu tas assemblée nationale ci bu fukki fan ak ñaar jotee ci weeru septembre